الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ci xissa muusa alayhi salaam ñu ngi àndaandoon ak yéen ba fi muusa fekke woon ñaar ñuy xeex mu leen di atte ci pexe seytaane ñaar ña kenn ki daal di faatu Moussa daal di tiit ci Firawna yëg pexe boobu nga xam ne seytaane def na ko te mooy faat waa jooju ba pare ñu askale ne ko Moussa mu tiit di nëbbatu ci dëkk bi foofu lan tolloon fa asbaha fi lmadinati xaa'ifan yataraqab mu ne asbaha Moussa alayhi salaam yamsi fi lmadina xaa'ifan Moussa xëy na ca dëkk ba di dox ci biir ville bi waaye mu ngi tiit conscience am tranquille xelam dalul nee na laqad kaana yaxsha an yasilal xabar ila firawna nee na instant bu nekk moom fir Moussa mi ngi xalaat xabaar bi léegi mu yegg ci firawna su boobaa dañuy jàpp ne moom moo tey rey waa jooju kooku nga xam ne ab xibti la dañuy jàpp ne moom moo ko rey su boobaa lan mooy xew fa yasa firawna li qatlihi bi sababihi kon firawna day danaan rey na bakkan dañ koy rey moo rey ñu rey ko nee na nekk muy dox nag ci biir dëkk bi waaye mu ngi tiit ci biir chaque instant mu ngi ragal soldaaru firawna yi ñëw di ko gëstu di gëstu kan moo rey waa ji bu ñu xamee ne moom la bu ñu ko jàppee dañ koy rey waaye bu leen fàtte ne Moussa ba mu fekkee ñaar ñooñu di xeex mu leen di àtte kenn ki faatu Moussa dig na boroomam ne à partir de tey de dootuma fekk ñuy xeex ba ma leen di at wa kaana Moussa alayhi salaam qad waada rabbahu bil ams an laa yadxula fi lmusaajaraat dootuma fekkee ay nit di amay xuloo ba mu ci dugg wala ay nit yuy xeex ba may atte wala wala wala yooyu daal pare naa ci wa an laa yakuna zahiran lil mujrimin ma fekkee rek kuy tooñ sax duma la dimbali léegi nag comme loolu yéene na ko def na ko ci xelam ak xolam xëy na sax wax na ko ci kaw muy dox ni ci mbedd Égypte yi mu fekk waa jooju doon xeex démb mu koy àtte ba ki mu doon xeexal daal di faatu mu fekkaat waa ji di xeexaat allahu akbar bi nafsi rajul allazi anqazahu bil ams yi fekkul rek sax waa ji di xeex mais waa ji di ko woowaat wa huwa yunaadi alayhi wa yasruxu waa jaa ngi koy woowaat di yuuxu ci kaw e Moussa ñëwal dimbali ma ñu ngi may rayati Moussa bi mu ñëwee taxaw xool mu xam ne waa ji doon xeex démb mooy xeexaat tey israélien boobu doon xeex démb mooy xeexaat tey ak copte bi rek fi mu taxaw moom Moussa rek mu xulli waa ji bët daal di koy joxoñ baaraam ne ko innaka la gawiyyun mubin yow de ku bew nga sa mbew gi sax yemul waaye sa mbew sa mbew gi da nga koo wane ci biti Moussa wax na baat yooyu waaye yemu ci daf ko wax ba pare jublu leen nag ñoom ñaar di ñëw ci ñoom kan la Moussa wax wax ji innaka la gawiyyun mubin kan la ko wax ah israélien bi te israélien bi mooy mooy mbokkam mooy ki doon xeex démb kooku la ko wax su ko ko waxee rek mu jublu leen bi mu leen jubloo waa jooju nekk mbokkam mi nekk israélien bi daal di tiit dafa ne Moussa bi mu ko ne yow ku beew nga ci moom la Moussa jëm te bu Moussa yegsee ci moom lan la xelam di dem ah Moussa da koy rey comme ni mu reyoon waa ji démb loolu la xelam dem comme Moussa laal na waa ji rek waa ji dee Moussa wax na ko lii ba pare def ay jéego jublu ci ñoom ñaar waaye xamul Moussa fu mu jëm jàpp na ne Moussa bu ñuy am ngàdd la koy def rek mu egg suuf dee mu daal di yuuxu ca kaw moom israélien boobu mu ne yaa Moussa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslihin mu ne ee yow Moussa ndax dang ma bëgg a rey comme ni nga reye woon démb ab bakkan kon la nit ñi doon la nit ñi xamul woon waa ji leeral na ko in turidu illa an takuna jabbaar yow daal benn assassin benn agresseur bandi nga bëgg a nekk ci kaw suuf reykatu nit criminel wa ma turidu an takuna minal yow de bëggoo bokk ci ñuy baaxal te bi muy wax di dafa yuuxu place publique la woon ñépp taxaw ah démb dañoo reyee nit enquête yaa ngi déroulé ñu ngi xool ku ko rey xamuñu ko dossier yaa nga pale ba espion yaa ngi tasaaroo ci biir dëkk bi ñu ngi xool kan moo rey waa ji léegi dégg nañ benn baat mooy lan yaa Muusa aturidu an taqtulani kama kama kama ña ñu egg saar boobu eggu leen foofu egg nga foofu kama qatalta nafsan bil ams yow Moussa yow danga maa bëgg a rey comme ni nga reye woon waa ji démb ah bi mu waxee loolu rek Moussa taxaw bët yëpp nag ne jàkk Moussa kon liñ doon li liñ xamul woon doon ko nëbb te waa jooju waroon ko nëbb parce que musiba bi yëpp moom la moo tax sooy dimbali da ngay dimbali ku jara dimbali am na ñoo xam ne jaruñu dimbali de ndax boo leen di dimbali ba dugg ba ci biir dañuy dem bàyyi la waaw fa amoon benn jàkk boo xam ne gars yi dañoo aboon caabi ji xiyaamul léegi pas jàkk ji ne kenn du leen ko jox ndeysaan benn benn góor gu baax comme ay doomam a ngi ci mu ñëw ci gars yi ne leen lu tax ngeen bañ a jox xale yi caabi ji dañoo dëkkul ci koñ bi wala dañoo wala lan la wala ñuy def dafa araam wala suba dañuy woote réunion waa koñ bi ñu xool ñun ci koñ bi lañ bokk wala bokkuñ ci ñu bëri mu woo leen ci guddi gi ne leen suba wax leen li xew ñu bëri di jéngu ba suba ba suba ba suba suba jot ñu julli tàkkusaan ñu bëri ñëwuñ ñee demoon bi ñu ñëwee ci asalaamaaleykum ca jàkka ja rek ñoom ñëpp dañoo muuma kenn nanguwul wax li la indi te góor gi dafa ñëwoon pour pour dimbali leen waaye gis nga nit ñi booy ànd ak ñoom ngeen di defi dara masa misa- misaal bu doon ab bërigo ngeen war a yenu bërigo bi balaa nga koy root ngay ànd ak nit ñi kaa leen dem yenu ji bërigo bi yow da nga koy root nga yenu ko ba pare nga xool na attan nga ko nga yëkkati ko nga yen ko sa bopp waaw fu kenn nekkul nag nga yëkkati ko yen ko sa bopp boo xamee ne mun nga kaa yëkkati mun nga kaa yenu sa bopp ba pare suba nga ni leen nag kaa leen dem buñ ñëwee baax na buñ ñëwul buñ ñëwul buñ ñëwul nga yëkkati ko dem ak moom na fekk mën nga ko waaye kaay leen ñu dem rek fekk ngandu maami barigo la ñu bañ a dem nga am problème loolu nit dafay mooy si ndiku gis ngeen Moussa loolu moo ko dal fekk na kuy xeex ñu koy néewal doole bi mu ñëwee moom da doon àtte rek comme dafa ponkal la dafa am doole li mu laalee waaji waaji dee mu am problème mu ngi ci dëkk bi ñemewuta ñibbi pale ba muy wëraat ci mbedd yi gisaat même waa ji di xeexaat bi ko waa ji waxee loolu ne ko yow danga maa bëgg a rey comme ni nga reye woon waa ji démb yow de da ngaa bëgg a nekk benn criminel ci kaw suuf benn reykatu nit yow de bëgg a bokk ci ñi baax fa lamma samia hadha arrajul alqibti qawlu israili li musa annahu qatala arrajul alqibti al axar bil ams أخذ هذه الكلمة وذهب وأخبر فرعون بأن موسى هو الذي قتل الرجل na copte bi bi mu déggee wax jooju rek génn ci làmmiñu israélien bi rek dafa daw jël wax jooju dugg pale ba direct demul sax ci garde corps yu ndaw yi waaye ci Firawna la dem direct ci kaw ne ko ki ñu doon wër démb ki ko rey man xam naa ku ko rey ñu ne ko kan la mu ne Moussa moo ko rey ah ci loolu amee nag fa lamma alima zalika firawna bi firawna xamee loolu istadda xiqduhu wa gayzuhu ala muusa moom daa bañoon muusa rek firawna moom daa bañoon muusa bi mu déggee wax jooju lan la ko jural mbañeel gi yokk mu mer mer bu tar mu ne indi leen ko léegi ñu rey ko te xam nga firawna bu joxee ndigal gaa yi tasaaroo wa jaa rajulun min aqsa al madina borom bi dinu nettali ci suratu qasas aaye 20 borom bi mu ne wa jaa rajulun min aqsa al madinati yas'a qaala ya muusa inna almalaa ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk faxruj inni laka min alnaasihin borom bi ni nettali ne benn waay ndeysaan bu gëm yàlla a wa jaa rajulun min aqsa almadina benn waay bu ñëw jóge ca biir dëkk ba waa ji mi ngi waaxu di daw waaxu yu tàng bi mu egsee ba ci Moussa mu ne ko yow Moussa day mbooloo maa ngi lay wër ñu ngi lay bëgg a tendre piège pour ñu jàpp la napp la yóbbu la pale ba pour rey la ah li ma ci xam de mooy bu yóbbu nga génn dëkk bi dëkk bi moom fii territoire Firawna Égypte boo fii nekk ñu lay jàpp te buñ la jàppee dañ lay rey génnal man nag damaa ñëw pour laay la biir parce que fañ ko doon nase laa ko déggee fañ ko doon waxee laa ko déggee ndeysaan léeg-léeg gars yi nekk ci seen pale yi di nas ay nas di nas ay xabaar ay xabaar yenn saa yi comme ñi ñuy jëmee xabaar yi ay jaami yàlla yu baax la yenn saa yi yàlla rëccal information yi ba seen xabaar yooyu daal di naax saay léeg nga jékki rek am ku la woo téléphone ne la defal attention place sàngam laa nekk dégg naa ñu fay réunion pour yow def la dara waaw toog naa benn fajar rek benn waaye woo ma téléphone ne ma ñëwul foo nekk ma wax ma ñëw dugg bureau mu tëj mu ne ma imaam diw imaam diw imaam diw imaam diw dañ leen bëgg a rey ñeent lañ mu limal ma leen seen daf leen attention koo ci xam bu yeboo nga wax ko léegi woo bu ko weddee nga indi ko fii ci man xaw nga loolu dafa garaaw léeg-léeg information yi di rëcc di senn waaw léeg-léeg ñu yónnee ay jigéen ci yow léeg-léeg ñu yónnee la alal léeg-léeg ñu tuumaal la léeg-léeg léeg-léeg yooyu yëpp pour jéem laa noppiloo pour jéem a freiné daawa ilallah te xamuñu ne daawa moom woote jëme la ci yàlla moom du taxaw mukk woo nit ñi jëme leen ci yàlla du taxaw mukk mukk mukk ak lu ci mën a am moom du taxaw su nit ñi dee ni ñeneen ñëw bi àddina bi commencé ba léegi yonent yàlla Muhammad di woote boobu ba léegi ñu ngi rey nit ñi wala chaque jour bu ngeen déggee télé bu ngeen seetaanee télé wala ngeen déglu rajo di ngeen dégg jullit bu nu rey ah la moo tax ñu leen di rey pour nañu bàyyi li ñu nekk loolu kese la su jullit yi nangu woon nekk ay caaxaankat rek jullit caaxaankat du am ak du am ak du am ak gouvernement problème d'accord ngeen dafa am benn jigéen bu tuub France da doon def rab jams avant muy tuub 24 heures la ko président bi ne yow yow yaa yor kàddu jigéen ñi France ci àddina bi yow yaay jàllale message bi avant muy tuub ah la ko président bi ne yow yaa gën ci jigéen ñi France yow yaa yor seen kàddu fooy tukki yow la foo dem na nga jàllale message bi mu tuub mu ne ko yaa gën a bon France yow gën a bon ah moom lu mu def ba bon dangaa baax démb tey dangaa dangaa bon dangaa baax démb tey nga bon kon bi nga nekkee yéeféer ku baax nga bi nga nekkee jullit ku bon nga bi nga nekkee yéeféer baax nga après ñu ne ko waa léegi comme tuum nga léegi xam nga nooy def da ngay mel comme jullit yi bon yi ni ñu mel rek mën ngaa continuer sa way di sol sa tubé yi di def ci soirée yi comme jullit yi bon yi ñu am na jullit yoo xam da ngay dégg moi moi je suis musulman mais non pratiquant hein di ngeen koy dégg musulman non pratiquant ak bëri ci àddina bi surtout ñi jëm ñi nekk ci kaw ponkal yooyu da ngay dégg moi bon moi je suis musulman hein mais non pratiquant hein ak bëri julli laa waaye du ma ko jëfee ndeysaan waaw allah xam comme Sénégal nii rek démb laay dégg benn ñaari xale jigéen gaa yi di leen bëgg a génn ci li nekk ñu ne non ñun ñun ay julli la naa man Xadija laa tudd waaw li ma def dara nekku ci waaw xam nga lu muy def daanaka loolu jaay sa bopp sax ko gën mooy loolu ñuy wax man ni kenn xaw ma di di sol ay yére di di di di défilé ci kaw xale yu góor yi di la xool te li gën a garaaw xoolal ab góor toog këram wala téléphone nga ñëw mu ne gis naa sa sa kii mais bon dama bëgg nga xool ma xool la ndax yow mën naa liggéey ak yow bismillah ay yére ngi ne del sol par benn ngay simmeeku di sol mu lay simmiloo di la simmiloo ndaw si mooy neetale nee na waaye damay simmiloo sama yére ba mu ma simmiloo sama silip li ko waa ji simmiloo yëpp simmi na ko nee na ba mu eggee ci silip bi laal bañ est-ce que sa bañ na ah pour xam nga lu tax waa ji ne ko simmi loolu pour nee na nee na ni muy doxee sir bi daf koy baare est-ce que waa ji da allahu akbar te xaddi ku tudd xoolal jullit bu jigéen loolu liggéey la naa loolu mooy nax sa bopp moom mooy li sénégalais di def nax sa bopp waaw bëgg a nekk jullit boo xam ne li la yàlla ne araam na lépp da nga koy nekk ba pare nga ni man julli laa comme comme mbër yi mbër yi néegi mbër yi yéen ñi toog fii yëpp am ngeen ay supporteeru mbër ah ñan ñoo am fi supporteeru mbër waaw léegi nag yow nga bëgg nga bëgg nii la la li nga nekk dafa xaraam nga ni wax xaraam na mais garaawul garaawul quoi ah loolu lu mu nekkee lii dafa xaraam yàlla nee na daf baaxul danga ko war a bàyyi jullit bu ñu ko nee mbir mi araam na jullit bu ñu ko nee mbir mi araam na lan la war a def bàyyi
bàyyi ma kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyara min amri yàlla nee na warul jullit bu góor ak bu jigéen ñu ne dara araam na yàlla ne lii la nga naan waaye te liggéey yooyu dafa bëri ay salon coiffure salon de coiffure jaay baar musique football yaay qu'est-ce que PMI ah ah waaw yu xaraam yooyu yëpp cosmétique su fekkee lu araam la su mun na nekk ay saabu ay ay ay diw ay ay fekk diw yi araamul mais bu araamee moom ab jullit da ko war a bàyyi ba pare lu araam loolu sax amul ak jaay ay mees ak ay mees ah yooyu yëpp dafa araam jaay cigarette di liggéey ci cigarette usine cigarette wala usine mees ab jullit di ci liggéey loo xam ne yàlla da neen araam na loolu ab jullit daf ko war a mooy sa dëkk te saa yoo ko bàyyee yàlla dina la indi lu ko gën ndeysaan damee na xale bu jigéen tudd Khadija ci loolu la doon liggéey ñëw benn conférence ñu waar ko mu dem tëj salon ba tëj salon bi la def billaahi wallahi taala tëj salon bi bàyyi complètement bàyyi ko ngir yàlla te te koo mënoon te ab jublu ko ñu ne ko araam na mu bàyyi ko ñoom mere ñi nit ñi wax ko lu ne waaye mu ne leen comme daa araam pare naa ci sama loxo bi dootu ko laal loolu mooy islaam loolu mooy nekk jullit loolu mooy imaan mbir baaxul nga bàyyi ko waa ji nee na Firawna mi ngi wër Muusa pour rey ko wa jaa rajulun muminun min ali firawna benn waaye bu gëm bokk ci ñooñu firawna ci copte yi la bokk waaye ku gëm yàlla la ñoo na di daw daw yu metti ñëw jox Moussa information bi mu ne ko qaala ya Moussa inna al malaa ya'tamiruuna bika li yaqtuluuk gaa yaa ngi lay wër pour rey la inna ashrafa firawna waa pale bi garde corps yi firawna ak état bi yépp yatashaawaruun ñu ngay diisoo ci ban mbir fii ka ci sa mbir yow lu tax bi qasdi qatlika pour jublu pour rey la bu nu lay jàpp rek amul sax ñeenti fan dañ la jàpp rek rey la faxruj inni laka min annasihin man de dama laa bëgga laaye biir génnal ndeysaan waaye Moussa daal nay génn fa xaraja qabla an yudrik génnal Moussa daal di génn fa xaraja minha xaa'ifan yataraqab sa génn na di nëbbatu waaye génn gi dafa ànd ak nëbbatu ànd ak secret ndax bañ gaa yi jot xabaar bi pour buñ ko yëgee daal di koy jàppi pour rey ko nëbbu na ci yàlla tabaraka wa taala ci ñaan ko bi duaa yi li ilmihi bi annahu la malja siwa Moussa làqatu na ci yàlla sàkku ci moom ndimbal nëbbatu ci moom ndax yëg na ne yàlla rek mooy làq yàlla mooy dimbaliwaate qaala rabbi najjini min alqawmi alzalimin yow yàlla maa ngi lay mus ñaan nga musal ma ci nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ xalis nii min alkaafirin yow yàlla musal ma ci yéeféer yi waxfas nii min charrihim yow yàlla yal nag ma musal ci seen musiba wal muraadu bihim firawna wa mala firawna ak mbooloom nee na najaatu Musa alayhi salaam min alqat Musa rëcc na ca rey ga ban rey rey gi ko waa pale bi doon wër firawna ak ay soldaaram pour rey ko xaraja Musa min misra musri'an Moussa génn na Égypte ci lu gaaw waaye jëmul pale ba de changé wul ay yéreem jëlul lekk yu balewul ndox préparé wul tukki dafa génn dafa dégg xabaar bi rek génn direct waaye ba muy dem yoru sax war waay génn wa innama xaraja bi mujarradi an jaahu rajul ci fi ko waa ji joxe xabaar bi rek fa la déparé ndeysaan ndax waa ji nee na ko moytul garde corps yi tasaaroon nañ ci dëkk bi ñu ngi lay wër na nga xool beneen yoon boo xamante ne nit ñi duñ fa jaar lu bari nga jaar foofu Moussa daal di dugg ci yeneen àll yi daal di dugg ci désert bi ci direct mu jublu fi nga xam ne fa la yàlla tabaraka wa taala namm ak rëccam Moussa aussi ba muy dem jubluwul woon direct ne mu ngi jëm barab sàngam lu tax xamul ndax moom bi mu juddoo ba léegi mu ngi ci paleel musul génn sax biir ville bi kon mënul xam entourage u dëkk yi yan dëkk ñoo nekk frontière ak Égypte moom daal dafa dugg ci benn àll rek soobu ci désert bi rek xotti départ parce que xam na ne buñ ko yéegee dañ koy jàppi rey ko moo tax jëmul woon amul destination fenn préparé wul aussi voyage bi du yére du lekk du naan du waruwaay du dara xam ngeen ne tukki boobu nar naa métti allahu akbar te haasihi awalu marra bi mooy première fois Moussa yaxruju fiha min misra Moussa di génn Égypte waxdahu moom kenn wa yuabbiru sahra waxdahu muy muy dagg désert bi moom kenn te xam ngeen désert la fa nekk sahra suuf la soo xam ne ku koy voyage te xamoo ko li ëpp mooy yow dootoo dellusi da ngay dee ndax amul ndox amul lekk amul sax garab gooy féexlu bu tàngaay ñëwee bu amul parce que garab du sax ci saxara lenn dong la yàlla préparé mu mënal désert dara mooy mooy gëléem moo la ñu tuddee ko safinatu soxra gëléem lu tax gëléem day toog weer du naan gëléem day toog weer du naan ndax dafa am biir bi dafa am ay réservoir d'eau su naanee fii ba mu fees mun na kaa ubbi ci biir bi feesalaat beneen beneen mbuus ci biir biir bi denc ko foofu ba pare tànk yi ni ko yàlla bindee du canc da kii Sahara désert tànk yi du dugg ci biir ba pare ngelaw li ngelaw désert bi mënul dara bëdi moo tax te Moussa moom bi muy dem li yëpp préparé wu ci dara moom kenn cundug moom moo dem zalla Moussa alayhi salaam yasiru bi nafsihi Moussa dox moom kese ak wéetaayam xatta wasala ila makanin kaana haza al makan huwa madiyan mu dox dox dox ci dox bu yàgg bu metti ba mu egg benn barab benn dëkk bu tudd Madian daxala mubaasara mu dugg ci dëkk boobu direct yabhas comme Moussa da doon dox préparé wu lan la bi mu duggee dëkk bi lan la war a njëkk a wër ah ndox ak lu mu lekk daxala yabhas anil ma an ma in yashrabu wajada biiran kabir mu ñëwee muy war ndox mu mu naan mu gis benn teen teen bu rëy waaye bu mu gisee teen bi attaque ñëwul rek jubal teen bi pour naan bi mu ñëw ba ci wetu teen bi jalasa yastarihu inda hadhihi l biir mu toog ci wetu teen bi nag léegi di noppalu jël temps am comme gis na ndox gis na teen ne xaar ma noppalu ba pare ba ma jël sama temps daa di naan wa kaana annaas yasqawna minha dawaabahum nee na nit ñi moom ñu ngi wër teen bi ñu ngi nàndal seen seen jur wa kaana xaaifan tuulal waqt mais li mu toog foofu yépp ci wetu teen bi di xaar nit ñi nàndal muy noppaluwaale xelam dalul mu ngi tiit tiitaange gi mu jële Égypte mu ngi ko indaale foofu lu tax parce que day jàpp ne ba léegi ñooñu mun nañ ko topp fekk si ko fi jàpp ko yaxsa an yursila firawna waraahu man yaqbidu alayhi mi ngi ragal ne Moussa mën na yónni ay nit ñooñu ay fas la ñuy yor ay waruwaay yu gaaw la ñuy yor ay arme la ñuy yor ay ngànnaay te moom dafa dox rek donte ne dox bi yàgg na dox bi métti na ñooñu bu ñu waree ay fas ci ay waxtu yu ndaw mën nañ ko ñëw jàpp si léegi fii yóbbu ko te buñ ko yóbbee ci firawna firawna daf koy rey lam yakid Musa yasilu ila Madian xata alqa bi nafsihi qariban min al biiri taxta shajara wastaraha nee na Musa yem na ci frontière Madian rek mu jubal direct ci teen bi pour am ndox pour naan pour noppalu ci benn keppaaru garab nee na waaye xiif dab ko ak coono moo tax mu tëdd ci garab gi di noppalu parce que dafa sonn dox bi yàgg na métti na waaye xiif na mar na ndeysaan nee na ay dàllam sax dafa wadd dafa dox ba dàll yi riir xam ngeen am na tiitaange bu lay dab ak yenn coono yi doo tootal dal boo doon dox sax dàll bi simmeeku doo tourner da ngay jubal rek ndax da ngay da ngay xeeb li ngay waaxu da ngay xeeb li ngay daw Moussa ba muy egsi Madian ci coono yóbbaalewul sax dàll ndax coono ndeysaan lam yakun maahu nuquud li siraai naalun jadid yorul woon aussi xaalis pour jëndaat yeneen daal waaye yorul woon xaalis pour jënd lekk pour jënd naan mu ne fii ardi madiyan lekk fa lu dul loolu ngeen di tuddee albaqal mooy lan baqal mooy lan ah ah déggu mu baax mooy jaaykatu jaaykatu fruit kon fruit la yu ndaw ndawaan yi mu gis ci ci ci àll bi bu doon yéen fii lu ngeen di wax ay siddéem ak ay lan ay sumpoog non gerte bokkul ci fruit yi de ay orange ak ay raisin mais bu dee foofu la ñoom amuñu amuñu ay sump de ak ay lan siddéem ndeysaan Moussa yooyu la lekk yu ndaw ndawaan yooyu yooyu la am mu lekk ak yenn xobu garab yoo xamante ne dagan naa lekk xam na ne bu ko lekkee du feebar mu daal di koy jël daal di koy lekk xam ngeen ne nit am na fu muy toll ci xiif yenn saa yi dootul xalaat lii dañ koy lekk wala lii dañ koy naan lu mu jot te instant yi loolu tamit islaam daganal na ko mooy nit bu tollee ci loru même bu gisoon lu médd da koy lekk nee na Moussa foofu mu toog ci keppaar garab boobu biir baa ngi metti di lemu ndax xiif biir baa ngi waññaaru nee na fi mu toog noonu rek ci Madiyan ci keppaaru garab googu ci wetu teen boobu nit ñi di nàndal seeni jur foofu mu tëdd ci garab googu hakada kaanat muruatu rijal nee na foofu mu toog ci keppaaru garab googu yasqa naasu min maiha an'aamahum nit ñi di nàndal seen ndox mi jur yi wa mawaashihim ak seeni gàtt kaana min aadati nnaas anna algarib ida qadima balad balda wa laysa ladayhi fiha ahad yacrifuhu fa innahu yatawajjahu ila makaani allazi yajtamicuuna fiihi nee na li ñu tàmmoon ñoom seen dëkk nit ku xamul dëkk bi kuñ fi xamul nit ku tumaranke bu duggee dëkk bi kenn xamu ko fi amu fi mbokk li mu war a njëkk a def moom nit kooku mooy mu dem ci place publique ci grand place yi ñuy toog mu annoncé boppam ngir am ci mbooloo mi foofu ku ko yërëm yóbbu ko këram jox ko mu lekk jox ko mu naan dalal ko utal ko fu mu nekk waaye Moussa moom bi mu ñëwee lu mu def daa jubal ci keppaaru garab tëdd di noppalu ci wetu benn teen moom demul ci mbooloom parce que loolu yëpp lu ko waral muy xamul tey la mës a génn mu ne foofu mu toog ba ci yàgg rek mu gis gaa yi daal di naanal seen jur ba pare daal di ub teen bi dem seen yoon Moussa fi mu tëddoon ci garab googu di noppalu ba yaram xelamam xaw a dalaat mu naan ndox léegi nag mu ngi xalaat ci xelam fan laay jëlee lu ma nekk ba mu ñaan yàlla sax ay xiif naa de naa ne maamoon dagg tumburu sax dina baax lu ma yàlla mën a indi rek baax na instant bi ndax sonn naa ci loolu la xelam di dem allahu akbar mu gis ñaari xale yu jigéen ñëw ba ci pitu teen bi rek daal taxaw seen jur yi nekk seen wet Moussa ne leen maa xat bu kuma ngeen luy seen mbir wa maa saanu kuma luy lan la du ngeen def fii du ngeen naan ngeen dem lu tax ngeen bàyyi ni seen jur yi rek naanuñu ñaari xale yu jigéen daal koy tontu ne ko laa nastatiu an nuzaahima rijaal wa ruaat wa li hada sabab fa innana nataaxaru an isaqi ndeysaan allahu akbar léeg-léeg sax gars yi dañ naan nit ñi dañoo naandal seen jur yi ba pare tëj teen bi dem xale jigéen yooyu mujj daal di ñëw waaye boroom xam-xam bii moom dafa bañ loolu nee na bi góor ñi di nàndal seen jur yi ci la xale yu jigéen yi ñëw tafu ko te bële taxaw bi leen Moussa ne waaw yéen ñaare yàgg ngeen fi de yéen lu tax du ngeen nàndal seen jur yi te dem xale jigéen ñi ne ko ñun dañuy bañ a jaxasoo góor ñi ba góor ñi nàndal ba pare bu demee ñun ñu nàndal ñun dañuy bañ a jaxasoo góor ñi loolu war nañ faa jàngal bari de gis nga jaxase ay góor ak jigéen problème rek la ñuy indi problème rek dafa am ay gars yu tàggoo woon gàmmu dugg ci njaga njaay aj ci seeni bagage cin yeeg soble yeeg saaku yeeg mat la yeeg buñ demee ba yegg ñu dal ci benn kër ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen ki ci gën a mag trente ans la am ñu lal seeni basang ku- waaw ku nekk commencé benn góor a ngi woon ca kër ga bi mu gisee gaay bi ñu lalee basang yi lal mat teg lal teg ci mat lay lal mat lay lal ci darab yi góor tëdd jigéen ñëw tëdd ci wetam kii ñëw njaganaayoo tànk kii njaganaayoo pooj góor gi xool leen xool leen ba jaag ne sama doom ñu ne amul leen këriñ du jaaru de ñu ne waaw paa bi lu muy wax nii mu ne leen këriñ ñu ne ñu ne du jaaru de foofu nag la góor gi yem këriñ du jaaru ngeen fi ngeen firi ko bu ngeen déggee wolof xam naa nag am na fi ñoo xam dégguñu wolof këriñ du jaaru jël leen baat boobu ngeen yóbbu ko bu ngeen demee ngeen ut mag mu leen ko firil këriñ du jaaru xam nga këriñ liñ koy doye këriñ lañ koy doye dañ koy boyalee waaw këriñ bu jegee safara rek daal di tàkk da ngay jël saaku këriñ nga jël benn xal bu ndaw nga def ko ci digg bi nga dem tëdd nelaw ba fajar nga yeewu dégg nga est-ce que dañ ko fekk këriñ loo fay fekk Hmm? lan moo ko def doomu taal lan moo ko def doomu taal xal bu ndaw bi moo taal këriñ gi yëpp waaye góor ci biir ay xale yu jigéen wala ay xale yu jigéen ci biir yi góor du jur jàmm du jur jàmm de te nag ndeysaan sunu sunu sunu sunu problème mu diine yëpp noonu la góor ñi jigéen ñee jaxasoo doo xam lii lu mu mun ngaa taxaw ngay xool lii lan nga ni benn waaye nee na ma dafa dem seen dëkk seen dëkk ñu ne dañuy gàmmu mu ne mu ñu forcé ko ba mu dem moom bëggul woon dem ñu forcé ko bi mu ñëwee mu teg saakam mu ne xaaral ma wër dëkk bi xool xool lan mooy gàmmu mu ne mu wër dëkk bi ba dëkk bi jeex gisul lu dul lekk naan lekk naan mu ne mais lii bàyyi naa ko Dakar lii kese bàyyi naa ko Dakar ba waa këram ne ko gis nga yow daal wax nañoo yow ba ñëw ba wax nañoo yow ba nga ñëw da ngaa war a noppi mu ne déet damaa bëggoon ngeen wax ma lii ngeen ma indi lan la man wër naa fii yëpp suba ba léegi maa ngi wër dëkk bi bi ñu yegsee ba léegi onze heures ba trois heures maa ngi wër pour gis lan mooy gàmmu mu ne wax dëgg yàlla lekk ak naan laa gis beneen yoon ne bu ma kenn indi fii dégg ngeen waaw est-ce que xam nga lu tax mbir yu mel noonu du am programme mu diine xam ngeen lu tax du am programme mu diine ku xam lu tax yonent bi da ko defut bañ leen da nga ciy julli ñaari raakaat xam nga boo demee màkk boo demee màkk dañ lay wax maqaama ibrahim ñaari rakk safa ak maro ñu ne la da ngay daw kaaba gi ñu ne la musdalifa ñu ne la da nga fay fanaan arafaat ñu ne la da nga fay yendu taxaw fa place bi nekk dafa lu ñu lay wax fii nag xam nga lu tax amoo lu ñu la wax bokku ci diine ji julli bi nga ñëwee léegi-léegi bi julli tamit lu ñu la wax ñaata rakka ñett ñëwoon la noo koy jullee bu gee jotee koor bi mu jotee lu ñu la wax azaka bi mu jotee lu ñu la wax xataa jàng alxuraan sax wax na la nooy jàngee dafa am aadaabu qiraatul quraan ndeysaan lu ne rek am na lu ñu la jàngal lu ñu ne parce que lii diine la yonent moo ko doon def nii la xataa socc sax ah socc socc yonent bi jàngale na nooy soccoo xataa sol sa dàll sax yonent bi wan na la noo koy waaye nag yéenee yéenee yee yee yooyu ngay xalaat waaw boobu boobu ngay xalaat am na fooy xalaat ah waaw boobu amul luñ ci jàngale amul moo tax ndeysaan amul di du diine amul luñ ci jàngale amul looy def yéen lan la ñun dañoo bañ a jaxasoo góor ñi bu góor ñi naanal ba pare bu góor ñi naanee dem ñu doog a naanal mu ne leen lu tax ne inna abaana cheikhun kabir la yastatiu an yaatiya huwa li yara suñu bàyyi day ndeysaan moo tax boroom xam-xam yi ñu ne jigéen warul génn biir kër liggéeyi ñu ne lu dul ngànt am xale jigéen yi xam ngeen lu leen génne ah xale jigéen yi génn di di di nàndal xa- xar yi seen xar ak seen jur yóbbu ko ci teen bi lan moo tax ñu génn seen papa màgget ñoo am ngànt seen papa comme mënul def lii ñoom ñoo fi sës def waaye mbokk yi lu ngeen di dégg fii mooy bu seen papa màggetul woon kon xale jigéen duñ génn moo tax ñu ne góor su fekkee mën naa matal lépp jabaram jarul muy génn na toog islaam bindul jigéen pour muy génn nii fekkee ne mën ngaa matal lépp sa lépp mat na yow ku góor ki ngant amul ndaw si mën naa toog bu ngant amee nag mataloo mun naa jàpp ci côté nga jàpp ci côté beneen bi mooy bu fekkee tamit loolu mënut a ñàkk na nekk liggéey bu dagan na nekk liggéey bu dagan bu lislaam bëgg waaw waaye xam ngeen ne am na suñu liggéey yoo xam ne fii fu nekk nii daanaka day yàq jigéen ñi rek banditisme rek mbon weesuwul gënul dangereux nga bàyyi sa soxna mu nekk ci arrêt yi di jaay lu kenn xamul di jaxasoog gars yi nga xam ne kenn yaru leen musiba weesuwul loolu ndeysaan ñu ne ko sunu bàyyi de dafa màgget man te nàndal jur yi looloo tax bi Moussa déggee lool rek ñaari xale yu jigéen yi wax mu daal di jóg nga góor gu baax dafay ëmbal jigéen yërmandi ak njëriñ waaye du ko jéem a utiliser tey bu doon fii benn xale bu góor la ci ndakaaru waaw day ñëw taxaw naa la waa commencé incarné waaw di dóor ay affaire am pour lan pour faj aajoom waaye góor gu baax moom fu mu gis jigéen da koy dimbali du ko jéem a néewal doole waaw tey nag ñu bare bari dañuy pattaxlu ci sentiment xale yu jigéen yi ak seen faiblesse ba yàq leen te loolu góor gu baax du ko def Moussa ba mu yëgee lii dafa jóg daal di ubbi teen bi daal leen di naanal ba seen yépp pare mu daal di dem ca place am ba mu toogoon daal di fay toogaat mu toog ci keppaaru garab gi ak yaramam bu tooy ak xiifam ak maram ak coonoom boole na waat encore ñaari coono waaye mu ngi ñaan boroomam ci làmmiñam ak xolam wa kaana yaqulu rabbi inni fi haadihi alxaajiza rabbi inni faqir rabbi inni waxiid daif rabbi inni faqir ila fadlika wa karamik Musaa mu ngi toog di ñaan yàlla ci xelam ak xolam ak làmmiñam yow sama boroom ah génn gi ma génn day tumaranke naa ci sama boroom xiif naa de sama boroom wéet naa de sama boroom lott naa de sama boroom daal sa xéewal ak sa mbaax moom lay xaar fii ma toog ndeysaan ay minute la ci teg rek ñaanam googu ki tëxul gumbawul pàttul ki dégg ñépp jege ñépp daal di koy dégg daal di nangu ñaanam googu daal di koy xettali muy borom bi tabaraka wa taala kon mbokk yi incha allah fii yàlla déggee ñaanu Moussa fii la ñuy yem ba àllarba ak jàmm incha allah ñu ñaan yàlla mu def si ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na question incha allah bismillah